société nationale d'électricité bu dal leen ak jàmm yëglekaay yu bëree bëri xëy tey ji fësal ci seen xët wu njëkk marathon budgétaire bi ñu doon dar képp niki démb ca penku ndaw réew ma ak ministère bi ñu dénk wàllum finance ak budget yéenekaay bi di réew mi quotidien ne Amadou Mame Diop njiital Assemblée nationale xam ne ni ëllëgu Sénégal gu nar a mucc ayib ci lañ nar a sóobu ci wàllum croissance exploitation ak hydrocarbures yéenekaay bi ne jëwriñ ju ñu dénk wàllum finance ak budget defal nañu ko lu toll ci 7000 milliards beneenub yéenekaay di enquête ni Mamadou Moustapha Ba démb la doon janoo ak député yi yéenekaay boobee nag na yombul woon benn yoon ci digganteem ak ñooma laas yëglekaay di ko feelu ne waaye nag mujjantel gi ñépp ni gongoo ci Moustapha Ba le témoin xëytu dee ko Moustapha Ba superstar ca ba ñuy ndar kepp vote budget yu atum 2024 ci jamono joo xam ne rek kàddu gu nekk jib na ci diggante ku jéggi ak ñi fare ci nguur gi yéenekaay bi ne waaye mujjantel ga bépp député tàccu nga kii di Moustapha Ba erreur bu rëy bi mu def ci bi ñuy ndar képp vote budget les échos ne muy pouvoir wala opposition kenn ku ci nekk daanu nga leer ci Moustapha Ba le quotidien yëglekaay dellu suwaat ci subvention yi nga xam ne rek état bu Sénégal war na koo joxe ba noppi daal di xam ne ni nag lu toll ci six cent deux milliards dinañ ko dugal ci ay projet ak i secteurs yu wuute l'observateur dellu suwaat ci ndox ndoxteelu marathon beek léegi mu ne nag tàngoon na loolu ci assemblée national ñu wax ci beneen yëglekaay mu di mu ñuy xamal nag lu jëm ci dépôt yi nga xam ne caution ngir élection présidentielle yu atum 2024 yéenekaay bi duñu xamal ne caisse de dépôt et de consignation nag jot na ab chèque bu bàyyeekoo ci Ousmane Sonko yéenekaay bi ne laataa nag ñu ko rejeté jox nañu leen ab quittance de dépôt ginnaaw gi nag la ñu defub càmbar xam ne nag moom Ousmane Sonko mënee suñoo jël ab segam ndax nag ab turam bokkul ci list yi nekkee ca DGE bu ñu sukkandikoo ba tey ci yëglekaay bi ayib defee xam ne ne nag nguur guy jaay doole nguur guy def li ko neex dajale ay bandi nguur googee moom la ñuy jëflantee la fii ci réewu Sénégal Euh, ginnaaw DGE euh, jamono ji nag caisse de dépôt et de consignation mooy sëleba yoon ñii di way politique yi ci kaay bii di yor yor avocat Ousmane Sonko ña ngay nag yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Siré Aliba ci lu jëm nag ci wàllu jugement bu rabat d'arrêt bi ñu déposé woon ca cour suprême bu ndakaaru lu mu ci mënti doon ay matukaay moom jël nañu ko rek ngir lu jëm ci élection présidentielle yi bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bii di Le Soleil juróom-ñaari sages yi jël nañu ay dispositifs yu toll ci fukki article ak juróom-ñaar ci jamono joojee nag Walf Quotidien addu jëmale ci aide à presse bi nga xam ne rek moom la ñuy jot saay su nekk yéenekaay bi ne Moussa Bokar Thiam jëwriñ ji lànk na ne du jébbal dërëm bu gën a tuuti groupe de presse bu Sidi Lamine Niass la tribune ne li ñu war leeral jamono ji mooy corona dealer yi nga xam ne rek jamono ji virus bi di faat ay bakkan ñoom ña ngay luubal ay milliards te ba fii may waxee ak yéen nag amul benn daan bu ñu yëkkati jëmale ko ci ñoom Sud Quotidien moom tey dafa xëy àddu ci campagne bu gerte gi yéenekaay bi ne départ bu bon la ñu ci nemmeeku ñu wax ci réew mi people ak waxtaan bu yaatu soxu bébé ginnaaw absence bu mu amoon ndaxub grossesse moom soxu bébé dellu siwaat na ak clip bu yees bi mu dippee nii la de séq naag waxtaan ak Anna Thiaw yër leen yëglekaay bi ci wàllu tàggat yaram ñu àddu jëmale ak sunu lamb Bombardier mi am ñeent fukki at ak juróom-ñaar Eumeu Sène ak Gris Bordeaux ñi am 43 ans yéenekaay bi ne mbër yooyu nag ña ngay wone seen place ci VIP yi bu baax a baax a jeexale yëglekaay yi ak musiba mbaax ba mi xaw ca yëmbal di ay mécaniciens yu doon coowaloo ci seen biir kenn daal di jël morom ma boo ju koy paak